Monsieur le Président, chers collègues, messieurs les ministres, euh, en 2016, on avait réformé fondamentalement notre constitution et je faisais partie de ceux qui ont prôné et voté oui. Parce que nous ni gannaaw assise nationale bi te président de la république bokkoon ak alliance pour la république ak kilifa yu nekkoon Benno Bokk Yaakaar ni dañuy jëgg lu gën a rafet lu ñu waxtaanee comme da ngeen di wax dialogue lu ñu waxtaanee ci dialogue bi nga xam ne assise nationale la woon ñu signé ay charte dañuy jël lu ci gën a baax pour réew mi pour askan wi te waxi constitution bu boobaa dina féete suñu ginnaaw pour ay ati ati at que dinañ teg réew mi ci ay charte yoo xam ne werante dina fi néew ndax bu fekkee dañuy wax grande démocratie lañu bu fekkee dañuy xalaatal suñu askan pour ëllëg dinañu jéem a toppandoo réew yoo xam ne constitution bi pour ñu laal ko il faut ay fukki at wala ñaar fukki at wala juróom fukki at waaye ci diiru lu yées fukki at constitution bi soppi nañ ko ay yooni yooni yoon ba di ñuy wax fii tailleur constitutionnel déet dëbb daaxe constitutionnel moo fi am taf yëngal constitution moo fi am du tailleur tailleur dañ koy respecté parce que dafa am liggéeyam di ko def ak correctement la meilleure preuve que dañu waroon waxtaanee constitution bi ci ci anam yu gën a yaatu ko niñ ko waxtaanee ñun assemblée nationale ñoo ci waroon njëkkee ndax assemblée bii nga xam ne ñu ngi ko voté xam nañ ci yan anam la génnee réew mi mu yëngu woon na ci ba mënoon na ci dugg ci ay fitna ci lan ci code électoral boo xam ne ak constitution boo xam ne bu ngeen ko xoolee liste yi gën a mag sax yu ñuy wax parti yu gën a mag <laughs> liste yooyu dañu ci am yuñ ci daaneel yu bëri bu fekkente ni code bi ñu teg. ci législative liste <laughs> mun na faagaagal ñi wax ni grand parti lañu bu ñu fàtte ni que listam ci lo législative liste suppléant yi dañ ko faagaagal liste yeew yi dañ ko faagaagal loolu jaroon nañ ko waxtaanee waroon nañ waxtaanee intercoalition yi ñuy wax ni nga xam ne gis ngeen résultat bi fii ak yeneen ak yeneen ak yeneen te loolu je crois que débat démocratique la waroon de noon boo xam ne ñun député yi ñoo waroon jël suñu responsabilité en tant que député opposition particulièrement et pouvoir jël suñu initiative def suñuy proposition gannaaw ba ñu càmbaree loi yi ba mu war mais gis nañu que li soxal ñi teewoon ci dialogue nangul nañ leen ñu dem dialogue accepté nañu seeni raison man damay respecté point de vue ku nekk parce que démocratie lañ nekk mais ñu lu soxaloon ñooñee rek lañ moo nekk ci révision bi pas soxal askan wi pas lu naroon yëngal réew mi ci élection yi ñu wees kon donc lan moo doon jëriñu révision bi en procédure d'urgence monsieur le ministre c'est heureux que vous ayez retiré le projet de loi visant la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est aussi une des inspirations qui montre, un des projets qui montre que l'esprit qui sous-tend les révisions n'est pas un esprit constructif, je ne dirais même pas consolidant, constructif. Quand on veut soustraire, quand on veut donner à un président qui ne rend jamais compte à l'Assemblée nationale, qui définit la politique de la nation, quand on veut lui donner l'autorisation et la capacité d'exercer un pouvoir de vie et de mort sur une Assemblée nationale, alors même qu'il ne, qu rend pas compte à cette Assemblée nationale, et que la pauvre Assemblée nationale n'a qu'une motion de censure qu'elle ne peut exercer qu'une fois par session, à l'encontre d'un Premier ministre qui, qui ne définit pas la politique de la nation, on voit bien qu'on est dans une asymétrie totale. C'est heureux qu'on ait renoncé à ce projet funeste. Pour terminer sur les parrainages bu ñu mel ni xamuñu luy parenage parenage ba tey jii nii gis nañu ñun ñëpp que dañu koy jënd ci réew mi bu fekkee nag suñu démocratie dañ ko bugg a teg ci labaj ci corruption ci gert ndax xam nañu ñun ñëpp ñun ñëpp ñu fi nekk ak ñu nekk ci biti gis nañu ay opération jënd parenage piir gis nañu ay opération jour de vote ñuy jënd ay vote bu fekkee dañu gëm démocratie bu ñu wax dañu bëgg teg suñu réew ci lu dëgër dañu war a mën a xeex loolu police bi ak sa euh, ministère de la justice dañ ko war a xeex